Babacar Sidi Diakhaté dafay dafay innové te lii kenn musuñu gis si wàllu lambu Thiès ndeysaan lii bu njëkkoon ci événement yu rëy lañu ko doon gis oh ndeysaan Babacar lii ci combat Modou Lo ci combat Balla Gaye lañu ko doon gis waaye Sidi Diakhaté indi ko fi nga xam moom mooy ci Thiès ndeysaan te ci combat bu rëy combat boo xam ne ñaari laay ñoo koy bëri laay Gothé ak laay Pythagore ndeysaan merci beaucoup aladji Sidi yalla ci jamm yag ndaysan tey ci yëngu na ndeysaan benn dëkk ñaari gar oh. ndaysan laay gi nonu laay ko tegu non ndaysan ma ngay wër geew ba mom laay ko te neena jóg leen laay ko neena xalé yi jóg leen ndaysan waaye Laye Pythagore Laye Pythagore nga ci ginnaawam ndeysaan moom it nee na suba teer suñu papa suñu xarit muy Père jërëlam borom mbaxadam zone boobu kooku mooy Père Sawru ndeysaan mooy ménager bu mag mag bi ndeysaan borom simis bi ndeysaan mooy Père Sawru ku baax ku yàlla baaxal ndeysaan waaye ménager lii lay jëriñ lay gote waaye mu ngi ànd ak ki nga xam moom mooy lay Pythagore numéro 2 jarbaatam la waaye xaay bu nekk ci yoon ndeysaan waaye li laa yor na li nga xam moom benn bàjjin ndeysaan mu koy joxañ eh, mbokku ndey koy jur Modou Anta ñëw na ndeysaan Modou Anta ngi noonu bi Franc génnee léegi ñëw na moom Modou Anta ndeysaan la grand champion ndeysaan Modou Anta ngi doon ndeysaan jot ab Senghor ndeysaan mu ngi koy tiimale sa xablu ya ndeysaan l'est l'ouest nord et le sud ndeysaan yow na ci ndigal moom lay gote lay gote aca ndeysaan mbokk yi seen LVD TV la voix de Ndiambour production mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam ne moom mooy ci Thiès caay benn dëkk ñaari gaar mbokk yi nag tey suñu pap muy alaaji Siri Jaxate borom Thiès ma fi woote ndeysaan ñu ngi présenté ki nga xam ne moom mooy Laye Goté ndeysaan ndeysaan yoroon li nga xam moom mooy ñaari ndox toj na ko waaye présenté ki nga xam ne moom mooy Laye Pythagore ndeysaan ndeysaan mbokk yi nag ñu ngi jëm ci li nga xam ne moom mooy ci dëj dëpp gi ndeysaan lu waay doon jaay léegi rek mu lamb ndeysaan Babacar ñu ngi jëm ci gannaaw combat bi Babacar Aliou baa ngi wax ak ñaari xale yi li lamb bëgg ak li lamb bañ ndeysaan waaye ki nga xam ni moom mooy laay Gothé moom moo sub moo gën a féete xale waaw mooy dalal ki nga xam ne nii moom mooy laay Pythagore ndeysaan waaye laay Gothé ndeysaan moo ngi moo ngi lu weex ndeysaan fees ñu ndijoor ndeysaan e geste am na solo laay Gothé ak laay Pythagore ndeysaan ar yi waxaan ak ñaar ndeysaan mbokk yi arbitre bi leen ndeysaan mbokk yi seen MVD TV la voix de production aca mbokk yi nag ñu ngi fi nga xam moom moo ci Thiès combat bu rëy combat boo xam ni àdduna ñoo ko doon xaar muy laay Gothé ak laay Pythagore waaye ndeysaan mbokk yi nag bu leen fàtte 9 juin ndeysaan wala le 9 mars le 9 mars nag Ilimane moo wootee ndeysaan combat bu rëy Feugeula bu Ngor ak Jeex Jaam ndeysaan ñaari xale yaa ngay leetoo Laye Gothé ak Laye Pythagore ndeysaan Laye Pythagore moo jiitu ci làmb moo mag ci làmb waaye tey nag dafa jël rakkam ndeysaan may ko chance pour bëre ak moom dey ndeysaan muy Laye Laye Gothé ndeysaan Laye mooy dalal ki nga xam ne moom mooy Laye Pythagore Desan ñaari xale yaa ngi léetoo ba si yàgg ñu dëgg léetoo ba lay gote lay pita ndeysaan Desan yi senaan ki nga xam ne ni lay gote mau fete ndijoor cokas na léegi lay pita mu ñu fete ndijoor desan mau ëpp yaram waaye ndax moo ëpp doole lol nak bu ñu dina leen desan. lay Pythagore cokkaas na léegi waaye cokkaas rek lay Gothé wàcc na toog ci tànk yi ndeysaan mu ngay mépp moom Laye mu ngi koy saxatal ndànk-ndànk ndeysaan door na góos waaye dalul ndeysaan eey jàppante loxo bàyyinte lay Gothé ak Laye Pythagore gote Gothé Laye Pythagore san ñaari xale yaa ngi ci ndeysaan ña ngay joxe latéral ñoom ñaar laay cokkaas na wala lay goote cokkaas na ndax ñaar ñëpp laay la laay goote laay Pythagore laay goote ak laay Pythagore ndeysaan ndeysaan moom laay goote ba mu fi mujjee fii la woon e eh, door ak door bu dal ña ngay xeex ña ngay xeex ñoom ñaar ña ngay xeex la ilaha illallah ndeysaan combat bu rëy ñaari xale yu bëri lay combat bu neex Laye Gothé mu dugg ci garde bi waaye door ko door bu dal ndeysaan eh moom laay léegi nag am na benn avertissement Laye Gothé am na benn avertissement arbitre sifflé waat na ndeysaan Laye laay Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore bën nañ léegi bëre bu rëy ñoom ñaar xeex raak ndeysaan waaw waaw ndeysaan lay gote lay Pythagore lay teg na lay toobi tiba suuf ndeysaan diw jël loxo ya waaye lu lay def noonu lay Pythagore lu mu def lay gote lay Pythagore hey combat bi Babacar bu ñu jàppante lamb jeex de bu ñu jàppantee mu jeex ndax ñoom ñaan ñëpp ay ndaanaanu bërikat lañ xeex bi gëmuñu ko ci bëri lay jeexee gëmuñu xeex bi laay goote la Pythagore laay goote ak la Pythagore jëral jëral 77 la waaw waaw Laye Gothé ak Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore ndeysaan ndeysaan ñoom ñaan nag kenn ku nekk da ngaa jox sa morom cër ndax dañuy bëre bés bu rëy Laye Pythagore am fu mu demaat ci làmb waaye Laye Gothé ne ko man xale dama bëgg jëli sama place ci làmb moo tax ku morom lay gote lay pitagor ndeysaan bés bee rëy bés bee diis lay gote cokkas na lay gote ak lay pitagor Laye Gothé dugg na si garde bi wala ma ne Laye Pythagore dugg si garde bi léegi dóor na waaye dalul jàppante loxo jàppante loxo bàyyinte Laye Gothé Laye Pythagore jël na ko jël na tànk ba la ilaha illallah eh la jël na tànk ba léegi waaye ki nga xam moom mooy bañ na waaye épercule ba épercule boobu épercule boobu toloo di nga gis nu rëy ndeysaan Babacar dafa mel la dafa mel ni lay lay góor dafa indi doole waaye dafa mel ni lay Pythagore moom it dafa indi doole du rëy loolu la ma ko suma wax léegi mu ne ma combat bi da ci contact ak ki nga xam ne moom mooy Modou Lo roi des arènes si ci ak lay ak Gora Sock moo ñoom seen xel dal na ci combat bi Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore Laye Pod Laye Gothé Laye léegi laay Gothé dafa mel ni daa bëgg a diriger eh laay Gothé dugg na ci garde bi waaye Compagne ba si sikkim ba la dal sikkim ba laay Gothé laay Pythagore laay mem na laay door jël na ko ña xeex ñoom ñaar ña xeex laay Gothé laay Pythagore ña ngay xeex ña ngay xeex ña ñoom ñaar. la ilaha illallah. laa ilaaha illallah laay goote ak laay Pythagore xeex nañ léegi ba génn ci biti baa doo jël avertissement laay baa doo jël avertissement eh, arbitre bi joxul avertissement arbitre bi joxul avertissement laay goote xeex nañ léegi ba génne laay goote Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé ak Laye Pythagore ndeysaan ba léegi ñoom ñaar ñu ci géew bi waaye bés bu rëy ñuy bëre bés la boo xam ne nii xamoon nañu mënul yomb lay Gothé wàcc na eh, moom laay Laye Gothé ak Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé ak Laye lay Gauthier lay Pythagore dut xeex mooy ubbi ak lay Pythagore lay Pythagore cokkas na léegi benn waaye dalul lay Gauthier ak lay Pythagore eh Laye Pythagore dugalaat na beneen droite Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé fayu na Laye Pythagore dugalaat na beneen Laye Gothé Laye Pythagore ba léegi nag jàpp amagul jàppante amewul lay Gothé Laye Pythagore lay Gothé ak Laye Pythagore jël na ko jël na ko jàppante nañu eh kor na ko day kor épercule ba Laye Gothé moytu épercule bi ña ngay xeex ña ngay xeex ñoom ñaar Laye Gothé ak Laye Pythagore eh Laye Pythagore mii du ñeexum ñebem kenn de Laye Pythagore mi du ñeexum kenn la Pythagore mii waxoon na ma ko léegi nee na mag muy entraîné moo ëpp doole xale bi entraîné la ilaha illallah ak Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore lu xew mi-temps 10 minutes bëri nañ 10 minutes ñoom ñaar aja ndeysaan Babacar dem nañu ci mi-temps bi noppalu li nga xam moom mooy 3 minutes ari baa ngi wax ay zizam ndeysaan ndeysaan mbokk yi arbitre bi na combat bi ndeysaan gannaaw bu ñu demee li nga xam moom mooy ci mi bi waaye Babacar fi mu toll nii nag ki nga xam ni moom mooy Laye Gothé wala mën na Laye Pythagore mu ëpp avantage ndax Laye Gothé am na benn investissement kon fi mu toll nii nag moom moo war a moo war a bëre fi mu toll nii fu mu toll nii moo war a jël combat bi moo war moo war ndax bu fi yemee dafay ñàkk combat bi. ndeysaan ña ngi leetoo ñoom ñaar Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore ndeysaan mbokk yi saan ñu fàttali wala ki nga xam ne nii moom mooy Laye Gothé moo ñu féeru càmmañ Laye Pythagore feneen du joor ndeysaan Laye ngémboo ngémb lu weex jël lu bula teg ci koom ndeysaan kii fii dëkk muy Thiès waaye kii nag waa Rock Énergie ko indi mu jóge fi nga xam ne moom mooy Tivaouane Taïba ndeysaan ànd ak ñoom Papa Sow Franc Gora Sock muy laay Pythagore ndeysaan laay gote wàcc na laay wàcc na laay wàcc na ndeysaan ndeysaan Laala ngay dox ci koom Laala ngay dox ci koom Laay Pythagore riposte na ndeysaan Laay Gothé Laay Pythagore waaye Babacar xam nga Laay Gothé dafa am wax ju dafa am wax ju mu te dafa war a bëre loolu mu ne Modou Lo roi mënul bëre mu ne Modou mënul bëre li mën ci bëre bëriwul waaye tey nag poulain Modou Lo lay bëreel te gis naa ni dafa am ay jafe-jafe ci poulain Modou Lo lay goote lay Pythagore ey da ngay xeex da ngay xeex da ngay xeex da xeex da ngay xeex da xeex balu do da ngay xeex da xeex da xeex jël nañ ko la ilaha illallah ñu déglu arbitre ñu déglu dama jaaxal lan moo doon arbitre Thiès ñuy gaaw a sifflé. arbitre Thiès dafa. nañ déglu arbitre. ñu déglu arbitre. ñu déglu arbitre. la ilaha illallah Babacar. Laye Gothé ak Laye Pythagore xeex nañ lay xeex bu métti xeex nañ xeex bu méttee méttee méttee waaye ki nga xam moom mooy Laye Gothé actuellement mu ngi ne la ci ardo ñuy faj Laye Pythagore yóbbu na ko ardo ña ngi koy faj Laye Pythagore Babacar ñaari xale yaa ngi ci géew ba waaye ki nga xam ne moom mooy Laye Gothé am na benn avertissement Laye Gothé nag fu mu toll nii nag bëri rek moom moo war jël engagement jël décision kat kii dafa fekk sama dëkk li war fu toll nii mooy mu jël décision et fekk ki nga xam moom mooy bëri ak moom daan ko waaye nag loolu nak loolu dina ko may ndeysaan ñaari xale yaa ngi ci da ngay leetoo lay Gothé lay Pythagore ndeysaan waaye mbokk yi le 9 mars eh le 9 mars le 9 mars nag Babacar xam nga day fekk na ñu jóge ci bés bi nga xam ne nii mooy bésu jigéen ñi waaye suma bésu ñoom yaay ak sa bésu ñoom yaay ak yaay yëpp ndeysaan waaye bu ñu jógee sa ëllëg sa incha allah waaye ñu jëm fi nga xam ni moom mooy ci arène nationale combat espoir combat ñaari xale ndeysaan jeex jàmm ak fëgala bu ngor ndeysaan lay goote lay pitagor lay goote lay pitagor lay goote lay pitagor ndeysaan bëri nañu 10 minutes mi-temps waaye actuellement nag ñu si li nga xam moom mooy deuxième mi bi waaye fi lamb ji toll nag ki nga xam ni moom mooy lay pitagor nag moom avantage ndax Laye Gothé am na ñaare avertissement moom Laye Pythagore amul benn avertissement kon bu fi lamb ji jëmee ki nga xam ne nii moom mooy Laye Pythagore moom mooy gagné ñaari xale yaa ngi ci ndeysaan waaye mbokk yi ni ñu fàttali leen ki nga xam ne nii moom mooy Laye Pythagore ba mu duggee ci lamb yàgg na boobu xam naa ni Laye Gothé bëriwul moo ko ci lamb fopp muy grand contre petit waaye grand bi grand bi bayu ko xale bi ndax indi na état bu am solo et te mu ngi bëre bëre bu wóor tek ci yoon ndaysan mom lay pitagor troisième établissement way ki nga xamni ni mom moy lay goté amna am na troisième établissement lay pitagor am benn avertissement. Lay Gothé Lay Pythagore Lay Gothé Lay Pythagore ah dafa mel dafa mel dafa mel ni lay dafa mel ni lay daa bëgg dem lay ngay bëralee tooba dóor na léegi waaye cokkaas na lay Gothé Lay Pythagore lay Gothé Lay gor laay Gothé laay Pythagore ndeysaan ay laa xay lala eey sama reporter yi tey nag Babacar ay reporter yi far laa fi gis ndeysaan laay Gothé laay Pythagore laay Gothé laay Pythagore ba léegi ndeysaan boo koy seen LVD TV laay Gothé moo njool féere Laye Pythagore moo ëpp yaram féete ndijoor ndeysaan faaw Laye Gothé jël initiative Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé faaw nga dem waaye ma ñam si loolu waay sama tuñ yaa ngi xar mënoo ñàkk a bañ a dem de Laye لاي غوتي لاي بيداغور لاي غوتي اك لاي بيداغور لاي Laye Gothé la Pythagore Laye Gothé la Pythagore Laye jokkas na lay fayu na Laye Gothé moo jokkas la Pythagore fayu Laye Gothé Amadou Ba ndeysaan boobu léegi ñu ngi combat bi. a jeexee de. Laye Gothé Laye Pythagore. Babacar Babacar lamb la Pythagore. Pythagore kita harus tahu di sana apa. Mu apa mu apa avantage. Kau ni kamu tahu dulu kok. Berkau. quatrième avertissement pour Laye Gothé deuxième avertissement pour ki nga xam ne moom mooy Laye Pythagore at bi nee na ngeen ñëw si biir géew bi Laye Gothé Laye Pythagore Laye Gothé Laye Pythagore. Laye Gothé Laye Pythagore. Laye Gothé Laye Pythagore. fi ah. lamb ji ki nga xam ne nii moom mooy Laye Pythagore. boobaa nag day am ndam lu rëy ndax dafa ñëw fi nga xam ne moom mooy Thiès fekk fi xale. fekk fi xale boo xam dafa nekk ci yoon ah lay gootee lay Pythagore. du fëriñ tamit. li bañ mboq laa ko teg. na. du ñu caaxaan ñooñu jëmmut loolu la jugee. ñun du ñu am na combat xam kon ak jëwee ji am na lay gootee. lay Pythagore. Ah, lay jàmm. ñaari bëri taxaw ñu ñëw doore laay Gothé laay Pythagore daa ñëw rek daa ñëw rek arñe moom daa ñëw rek arñe ñu ngi naan lay demal laay demal loo am jël waaye laay daa téye boppam man xamul tax mu téye boppam. Ah, ah, lu xew. lu xew. lu xew. lu xew. lu xew. lay laa xañ la laa waaye ki nga xam ne moom lay Pythagore am na ndam ci kaw Laye Gothé Laye Pythagore gagné na par décision at par avertissement ndeysaan ndeysaan mu ngi oo rakam rakam la ndeysaan oo na ko ndeysaan sabu nag moom ndeysaan oo oh, ndeysaan ndeysaan